Merci, Monsieur le Président. Euh, monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame le ministre de la Microfinance, Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice, mes collaborateurs du ministre, chers collègues, nous y sommes bala fenn l'association des femmes, des femmes juristes article 19 Sigil jigéen etc. 2012 ba léegi ñu ñuy accompagner tey bu ñu doonee lu am nañ ci benn contribution boo xam ne ñoom def nañ kon tay, dañ leen di féliciter jaaraamaa yéen may wax ne tay, dafa jot ndax suñu waxee 2016 à 2019 ñu ne kat am na ay viol lu toll ci ñeenti junni jigéen ak ñetti téeméer ak ñaar trop c'est trop ñu wax ne de 2017 à 2018 am nañ juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn viol sooy xool lépp ñu accentuer ko ci xale bi am ñetti at ak xale bi am soog a majeur am fukki at ak juróom-ñett may wax xaayaan ku dégg séeréer lu tax xaayaan ku dégg séeréer mooy le président Macky Sall jot na seen cri de cœur ndax kat ab tëx neexu la kuy dégg neex a waxal te président Macky am na capacité d'écoute yërëm na jigéen temps bi dafa néew mais bu ñuy lim li président Macky Sall def ci jigéen faveur yi mu jox jigéen bi mu toogee ba léegi kooku defe naa ñun ñoo ko amee njukkal defal ko sargal le président Macky Sall nous les parce que ba mu faloo ba tey si ñun la nekk kon jaaraama la président Macky Sall bi nag ñëw na dinañ ko voté te tay mënon nañ ko voté sax sans débat parce que ñëpp ko soxla ñëpp xam nañ ne dinañ ko voté à l'unanimité té fena na nak ku dara jàppul war na mëna a voté loi bi ñu am ko à l'unanimité mais monsieur le ministre suñu paré da fa a am accompagnement accompagnement bi ci lan la monsieur le ministre dafa am ben lo xamné euh ministre de la santé daf ko def à travers les enfants de 5 ans de 0 à 5 ans avec les femmes enceintes Nous bàjjanu gox nous bu Nous solo ci gox yi ma Nous ne pratique pour euh, pour suivre le viol parce que les faire. ne bi wala kenn ba nga xam ne bàjjanu gox bi nekk ci biir gox bi war na mën a xam ba xam ne xale bii kat ñu ngi koy violé wala nangam dina tax ñu gën a gaaw a détecté lan mooy viol kon mécanisme boobu war nga ko instaurer au niveau du ministère de la justice parce que ni ñu dëkkee moo tax jigéen ñi bàjjen nijaay tante ñoo bokk dëkk ci dëkk te loolu tey bu fekkee def nañ ko tey dina mën a tax ñu identifier ñan ñooy viol parce que kat ñeenti junni yi ak nangam tey boo xooloon li nëbbatu tey di nga am juróomi junni wala juróom benn junni te loolu mën nañ ci dimbali beneen bi mooy li ci des dafa des ci ñun yaay yi ñun jigéen ñi ñun mag ñi ñun rakk bi tey mënuma nangu nga ne kenn du violé sama doom nañu indi loi bi crime criminalisé ko loi boobu ñëw tey nga jël sa doom bu am juróom benni at yan ko siwa ndox bu sedd mu dem ca garage mécanicien yi di jaay wala mu dem ca oto ya di jaay kooku violé ko dafa yomb loolu dafa desaat ci nga liggéey

di agressé góor gi monsieur le ministre loolu war nañ ci jël ay matuwaay parce que tamit boo kenn du ma agressé kenn du ma laal ñëpp d'accord il faut changer les ay jigéen lañu nañu delluwaat ci suñu yaay yeeg suñu maam li ñu yore mooy am comportement di sol lu décent revaloriser waat suñu bopp parce que tey booy xool yàlla na ma yàlla baal dem na ba suñuy valeur dafa jeex ci góor ñi parce que daan nëbbatu sa ween nëbbatu góor gi naw la désiré la mais loolu defatul dara góor ñi ndax ñun ñoo ko def parce que ñun ñoo jël suñu bopp weer ko ci marché bi ba lu ci bari jaratuñ ko kon loolu monsieur le ministre bëgg naa ñun jigéen ñi comme dañoo bëgg liñ soxla rek lañu jël projet de loi boo xam ne dafay tere sol paccal ak mini ak yenn comport yenn yenn tëri yoo xam ne baaxul loolu tamit yéen nañ ko yéen jigéen ñi sax nañ leen ko war ngeen a xool ñu ci départ